abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen di ko mën a jot ca tàng-tàng ba ca tàng-tàng ba assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar dileen leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa ta'ala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan woo xam ne dañ ciy jéema indi ay leeral ci différence bi am ci diggante ad-danbu ak as-sayyi'a ad moom lañuy firee bàkkaar asayyi'a moom lañuy firee ñaawteef ndax ñaari baat yi benn lañu wala am na woro wala wuute wala différence bu am seen diggante loolu lañ fa yéene jéem a waxtaane mbokk mbokk yi bu ngeen di seetlu ci ñaan dinañ faral di wax allahumma agfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina waaye duñuy wax allahumma ghfir lana sayyi'atina wa kaffir anna dunubana maanaa dañuy wax yow yàlla yàlla nag ñu jéggal suñuy bàkkaar ta nga faral ñu suñuy ñaawteef waaye duñu wax yow yàlla yàlla nag ñu jéggal suñuy ñaawteef te faral ñu suñuy bàkkaar kon lan moo tax baatu xufraan bi firi njéggal di ànd ak zanbu bi firi bàkkaar baatu takfiir bi firi e, far wala effacé di ànd ak sayyi'aat waaw loolu itam lu jara leeral la ci biir jàngat bi sax dañuy seetlu ne alqur'an li mu wax mooy innal xasanaati yudhibna sayyi'aat waaye waxul ne yudhibna dunub dana jëf yu baax yi jëf yu rafet yi dañuy efase dañuy éliminer jëf yu ñaaw yi waaye waxul ne dañuy éliminer bàkkaar yi ba léegi itam alqur'an daf ne inna allaha yaxfiru dunuba jamia waaye waxul yaxfiru sayiaati jamia kon daal xufraan dunub rek waaw xufraan dunub rek waaye takfiir sayyi'aat rek waa lu ko waral tontu bi de mooy daa am woro wala différence ak wuute gu am ci diggante ñaari baat yi muy danb ak sayyi'a différence bi nag mooy boo jëlee baatu danb mooy tooñ wala ak moy wala bàkkaar waaye dafa nekk moy goo xam ne nit ki da ciy lor boppam waaye du ci lor kaneen nga xam ne digganteem ak yàlla la lu mel ne nit ki bañ a julli wala mu bañ a woor wala mu bañ a aj wala mu bañ a joxe azaka wala yiima tudd mu bañ leen def na mu waree yu mel noonu loola digganteem ak yàlla la loolu mooy zanbu mooy tooñaange boo xam ne diggante nit ki la ak yàlla tooñaange yu mel noonu nag euh, yàlla subhaanahu wa taala dina ko jéggal jaam bi ci kaw jaam bi jéggalu ko jaam bi itam tuub dellu ci moom te fas yéene bañ cee delluwaat fas yéene bañ koo defaat ndax yàlla moo ne qul yaa ibaadiya alladina asrafuu anfusihim laa taqnatuu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim yéen sama jaam ñi nga xam ne da ngeen a ëppal ba mooy bu leen naagu bu seeni bàkkaar bari bari ba ngeen naagu yaakaar ne duma leen yërëm ndax man yàlla damay jéggale bàkkaar yépp ndax ku mën a jéggale laa te ku bari ku bari yërmaande laa donc adan moy mooy tooñaange bu ndox diggante jaam bi ak yàlla bu jaam bi jéggaloo yàlla yàlla na ko koo assayi a nag mooy tooñaange boo xam ne day dox diggante jaam bi ak mbindeef diggante nit ak moroomam wala diggante nit ak mbindeef yi nit ki mën na tooñ moroomu nitam ni moom wala mu tooñ mala fas wala xar wala bay metital leen wala mu tooñ sax lu amul ruux benn jamaat wala mu tooñ gàncax dagg garab wala yu mel noonu wala mu tooñ def benn tooñaange ci environnement bi wala ci nature bi wala ci air bi yi yëpp ay xeetu tooñaange la waaw wala nit ki sax tooñ tooñ goo xam ne day jëw nit wala mu rambaaj wala mu sàcc alali wala mu agressé nit wala yu mel noonu waaw tooñaange yu mel nii nag nga xam ne danga ciy lor kaneen sa moroomu mindeef moo xam nit lay doon wala mala wala gàncax wala yu mel noonu ah ngir nga mucc ci lor ji ngir nga mucc ci bàkkaar bi faw itam nga delloo àq ji bu dee nit nga tooñoon nga jéggalu ko bu dee alali nit nga tooñoon nga jëloon nga delloo ko ko alali nit nga euh, jëloon nga delloo ko ko jéggalu ko waaw bu fekkee itam amande daf ci war nga joxe amande ba jéggalu wala yu mel noonu boole ci nag jégguluwaat yàlla yàlla mi nga xam ne mooy aaye tooñ donc dan bu tooñ la sayi a tooñ la waaye dan bu diggante nit ki ak yàlla la comme bañ a julli wala bañ a woor wala bañ leen a def ni mu ware waaye sayi a diggante nit ki la ak mindeef waaw bu ko defee nag nit ki su defee lu ñaaw muy tooñ na moroomu mindeefam bu jéggaloo moroomu mindeef bi ba mu jéggalu ko bu dee tooñaange goo xam ne jéggalu rek la laaj wala bu dee dafa laaj jéggalu ak delloo àq bu jéggaloo moroomu mindeefam mi ba delloo àq ji ba noppi wala ñu jéggal ko àq ji mu jéggalu yàlla itam yàlla miy bañ tooñ ndax ku tooñ mindeef rek to en même temps tooñaange tooñaale nga yàlla ndax yàlla day bañ yàlla day bañ tooñ voilà su ko defee nag doo yem ci jéggalu ga waaye da nga ciy boole def yu baax yu bëree bëri ngir mu mën a effacer trace bàkkaar bi yàlla moo ne wa aqimi solaata torofayi nahaari wa zulafan min al layl inna al xasanaati yudhibna sayi'aat dhalika dhikra lidhakirin waaw yàlla subhaanahu wa taala li ñu soxla ci aaya bi mooy innal xasanaati yudhibna sayi'aat rek muy nit ki su defee lu ñaaw da cay toftali yu baax yu baree baree bari su ko defee yu baax yooyu effacé bàkkaaru yu ñaaw yooyu mu def mi ngi mel ne fu am ay microbe boo fa sottee lu mel ne eau de javel dafay dafay rey microbe yi kon mbokk yi yàlla nañu yàlla musal ci tooñ yàlla yàlla nañu yàlla musal ci tooñ mindeef ni ñun mbokk yi ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci seen YouTube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fi la njariñ yay gën yaatoo jàngeen jëf wassalaam